dëkk bi nit ñu nga gis leen xale yi di gàddaay di dem ci gaal gi ñoo ñu am rubrique boo xam ne dafa tudd nemmeeku. nemmeeku ñu war a dem nag seeti ji kilifa bii ñuy seeti. ndeysaan ci rubrique nemmeeku. Mhm. mu wax ñu ne tekki ci dëkk bi am na tukki tekki am na waaye te toog ci dëkk bi tekki am na. Mhm. ñu dem nag seeti élément boobu ngoy ñëwaat. d'accord mbokk yi xarit. man de conseil bi may jox xale yi nit dama dama naan nit fu mu nekk wërsëgam dina ko fekk man exemple bi may jël sama bopp laa koy jëlee man bi may gën a nekk xale tey quatre-vingt-neuf may liggéey benn société boo xam ne tëj na léegi ma nekk fa mu tëj sama mag ñëw ne ma yow da war a voyager booba Italie yi rek moo xew itam ay Italie Espagne rek ngay dégg nga xam ne yow liggéey na naan na passe baa ngi de demal ma ne ko man duma dem man ko man fii laay toog liggéey parce que am naa fi relation am naa fi expérience du ma li ma fi am nii du ko fi bàyyi dem di commencé waat feneen à zéro xaw ma lu ma fay fekk mun ma da ngaa dëgër bopp man ko déedéet bu bopp man xam naa li may liggéey fii laa toog liggéey nekk employé tey jii ba nekk chef d'entreprise mën naa xam ne ci courtier d'assurance yi gën a mag Sénégal si la bokk fi ne nii maa ngi ci sant yàlla bu baax mm. loolu boog exemple boobu laay jox xale yi. nee naa liggéey la mu am solo. foo toog di nga liggéey. surtout léegi man nee sax léegi il paraît que. ñu nekk fu ñu seet si foofu sax ñoom naa dañuy ñëw côté yii si liggéey. nee naa lépp lépp am na fi mais ñii dañoo jàngi métier dem liggéey tekki. ñii dañoo dem jàng am bac dem ay université ñëw tekki. ku nekk ak sa chance ci fi nga nekk. Mm-hmm. ma nee naa nit fu mu nekk ci fi ci li nga yëngatu. Mm-hmm. ci la sa wërsëg di nekk xam lu bon. toog croiser le bras. Mm-hmm. naan man de am naa diplôme bi du def lii du ma def lii moi je suis contre. Mm-hmm. moi avec quinze mille francs de salaire billaahi. maa ngi ni tey tey nekk chef d'entreprise. Mm-hmm. di fay impôt di fay tous les droits lu dëkk bu fay. maa ngi sant yàlla je suis un bon contribuable. mën naa wax ne à du janvier boo ma ñëwee ma jox la ma jox la quitus. waaw ah. quitus mooy wane ni fay nga lépp fay nga IPRES. fay nga caisse de sécurité sociale fay nga sa droit yëpp. Mm-hmm. loolu maa ngi ci sant yàlla. xam la mm-hmm. kon boog nit fu foo nekk di fa liggéey. Mm-hmm. fu la sa wërsëg di fekk. voyager bi. d' accord ci benn côté am na fu mu baaxee. mais am na boo yow boo boo peesee sa bopp war ngaa xam ne war naa dem koo xam ne yow da ngay dem. maanaam maanaam maanaam ni muy voyager man moom moom laa comprendre yow da ngay dugg ci gaal gi dem foo xam ne xamoo loo fay fekk. xamoo ne lii nga fay def da dem rek naan ah, mën yàlla mën naa. amoo dara mën ngaa dem rek taseeg dara. Ah. man d' accord naa kuy voyager ci nga ne ah def sa benn kii noonu. planning waaw planning. am am euh, voilà genre yooyu nga ne ah fii kat laay am naa fa benn projet bu may liggéey ba xam ne am nga yëpp. Mhm. man loolu d' naa si. voilà loolu nag moo tax ñu ni. Mhm. man li may conseiller jeunes yi. Mhm. nañ toog bu jàng jotee nañ toog jàng. xam na suñu amee ay pré inscription sax wala yu dema noonu mën nañoo daal dem mais wala nga am fa ku la fa woo wala sa benn liggéey boo ñëwee fii di liggéey mais dem foofu boo déggee ñu lay dàq ak ñi tiire ay bali fital ak kii dee naa kii deewul ak wala nangam wala gaal ga egg na gaal ga amatul essence ak yooyu aventure yooyu ku koy def da ngay da ngay xaru nañ nañ ngir yàlla toog fii xaar yàlla ku nekk am ko fi sa place. Mm-hmm. fi nga dëkk juddoo fa. Mm-hmm. loo fa yëngal yàlla mën na ci def. Euh, man bi may commencé maa ngi tàmbale woon benn société bu ñuy wax MSAC foofu tëj en 98 ma ñëw benn cabinet bu ñu doon wax CAC pour ne pas de la publicité ma dugg foofu mhm. nekk fa directeur production falaa xam ne ñi ñëpp xale yi ñu fekk ma fa ma am yërmande si ñoom ñuy liggéey jàppale ba 2012 ma démissionné foofu mhm. ni damay def sama yëfu bopp mhm. mais ku ma ci tàggu ko dama doon fi bàyyi mooy góor gi mii. Mm-hmm. ak ku ñuy wax Maane. ak euh, ñeneen ak ñu nekk Touba. Mm-hmm. waaw parce que ñun am nañ ko fépp. ci pàcc ci région yi am nañ ko Mbour. Mm-hmm. am nañ ko Kaolack. am nañ ko Touba. Touba booy xool bu fa gën a mag ñoo ñun ñoo ko moom. xam nga waaw am nañ ko Touba. am ko fii Colobane fii tamit am nañ fi benn ak fii. fii mooy nag mooy siège bi. mooy waaw fii man maay directeur général bi. xam nga léegi nag ñoom. Euh, ñu nekk xale yoo xam ne aussi. Mhm. sont dynamiques. am jom. Mhm. mën a liggéey. Mhm. mën naa ne man fii dama fiy ñëw rek. mais daanaka. superviseur lépp ñoo koy def. ñoo koy def. góor bi nga gis nii. c'est a de relations nangu mu liggéey. mais xam nga ñooñu c'était kii. ay a encourager suñu relation sax nekkul ay employé wala ay kii. keroog bi may def di leen signé seen papier d'embauche mhm. ne leen kii leen ñoom ñoom ñun dañuy gëm signé ñu xool sax nekk laa laa leen fay mhm. billaahi xam loolu daw na yaram di dañ ne du ñoom du xool mm, kii bi dañuy gëmm signé loolu lu may lu may fàttaliku laal sama kii mu bañ ma ma man ma bañ a ba sa kanam ah, <laughs> may kii quoi xam nga loolu tamit dafa c'est su ma leen waxee ne mën naa ah yéen a may aane ah ñun ma de grand dañuy sax xanaa commencé guñ sax loolu lañ may wax kon boog loolu sant yàlla la mm-hmm. ñi nekk ci kaw mm-hmm. ne ni yërëm ñi nekk ci suuf mm-hmm. c'est important kilifa boo nekkee ci entreprise da ngay jéggale di jëllale di am yërmande bañ a xeeb bañ xeeb kenn xoolal sa entreprise nga toog ci buntu kër ga jaay caaf wala ah, ki ni yónni bu ci xeeb kenn xamoo ku ci nekk ndax wërsëgam moo tax fii taxaw ba léegi loolu bëgg kooku benn góor moom paa moom ak ma wax ku nekk da naa fii famille la naa ko ba sax dama wax ni bureau yëpp bu heure añ jotee bu kenn jënd añ nañ dem ci ci jël ci ci kaas bi ci ci kees bi. Mm-hmm. ngeen jën ngeen añ ba suuf yëpp avantage la ci kër gi loo xam ne mën naa wax ni sarax la xaw ma nu ko mën a tudde ku ci nekk boo mënoon génne 1000 francs jëndi añ. Mm. donc kees gi nga koy jël lekk. Mm. ba suuf doo fay dara solo la. yii bu ko ndaw ñu déggee seen xel dina dellusi mm-hmm. ñu xam ni dara du hasard foo toog yëngatu. Mm-hmm. yàlla mën na la faa fekk. xam nga ñun yor tey lii. ñun ñu yor tey lii ci lu tuuti lañ tàmbalee lu ndaw a ndaw a amuñu woon dara dara dara dara vraiment nekk ci ay pré conditions yu précaires waaw mais tey ak euh, euh, ngay xaar di liggéey di comme ni ñun on oh, oh, man sama kii mooy man damay dem ak pérennité. Ah. du ma du ma ne yàq mosuma yàqal ko wax bu naa ma Diop sax danaan eh ku dal ku teey la. waaw sa bu naa ma Diop kooku wax. la ku dal ku ñi ma xam bokk ci loolu lañ ma xamuñu ma ci kii noonu ay vitesse sa këtt këtt yooyu. man damay def ndànk rek di def ndànk di def ndànk ba ñëw. Mm-hmm. tey lu ma doon mébét si àdduna. mën mm-hmm. naa wax ni bu doon kër. yooyu yëpp yàlla jox na ma ko ay lépp nag yu bëree bëri nag yoo xam sax kenn du ko wax ci ay kii ni day mel ni <laughs> xam nga ah voilà sant sant sant yàlla jeunes yi daal maa ngi leen encouragé ku fiy génn na nga am pré-inscription wala nga am adresse bu wóor nga xam ne boo demee foofu kat dem ci yi leer leer mais gaal gaa ngi nii rek nga ne naa dugg ci gaal gi rek dem mbëkk ma xamoo mooy mbëkk bi lu ñuy wax mbëkk mi mooy xamoo loo fay fekk mu nga fa fekk lu baax. Mhm. comme te nee sax fekk fa su lu bon sax moo ëpp. nga nga fekk fa lu baax. moment bii géej gi dafa yëngu nañu arrêté gaal man dama jaaxal ci xale yi. Mhm. mooy toujours nga dégg ñu ne temps de mort temps mhm. mais ba tey ni xale yi man ne dañ leen a gën a kii daal. waaw ma ne man nag est-ce que nag état bi tamit. moo war a jug nag. accompagner leen. jug accompagner leen ba pare. def xeex ak ñi ñi leen yóbbu. waaw xeex boobu. fexe ba loolu du amati loolu mooy affaire bi te ñun gendarmerie police bi am nañ bu ñu am confiance fii état bi. Mhm. ñoo xam ni ah, vraiment. waaw valeureux. Mhm. ñoom mën nañoo fexe ba dii doo fi amati. ay sa papa bu liggéey ni coon sekk di way naan balaa ngaa xam boo yoree kër nga xam ne sa baay daan daj. waaw waaw loolu ku ne xam man xam naa ci dara tey. ngeen ko kër fii ñun la jën yi jeex na yàpp bi jeex na dépense li bi jeex na toujours ngay génne di dépenser. Mm-hmm. ku ne ku ko xalaat war ngaa dem yëngutu yëngutu man yëngutu man man man façon liggéey bu nekk def naa ko port bii liggéey naa fa ba tàyyi mm-hmm. nekk euh, Sonacos bii liggéey naa fa ci entrepôt yi wax ne mm-hmm. yan yu def lu ne barke alxuraan su ma ñëwee sangu ba set dem ko la baan wutu fa sama yu rafet toog jàpp ku ma jógee mu ma ah man fi état laa ko jënd <laughs> macha allah Yaxa Dia hmm. euh, mi ngi noonu waaw nga am ci euh, loo ci war a sànni bu baax te nga xam émission bii di hmm. nemmeeku jàmbaar ñu war a dem fekk kilifa hmm. moo xam DG nga moo xam ki nga xam ne mi ngi lal taabam ci mbedd mi ñu laaj ko naka la góor góorloo ba taxaw tey ba taxawal entreprise am mm-hmm. ba yeneen i nit di ci jariñu mm-hmm. kon toog tekki am na tukki tekki am na